mbokki Touba ci kanam Nour Daare di ñoo ngi leen nuy bu baax di leen ziar euh, di fas yéene ànd ak yéen euh, ci liggéey yu am solo yi nga xam ne euh, Touba ci kanam sumb ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñu fas yéene ànd nag dem wan bërëbu fajukaay yi nga xam ne Touba ci kanam mu ngi koy def benn ca Daaru Xaddim benn ca Bobareel beneen ca Kër Gol ak bi nga xam ne tàmbali nañ ko bu yàggut muy Touba Njaareem université bi nga xam ne euh, Touba ca kanam euh, jël na fa engagement ginnaaw bi mu jébbalee Serigne Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fa yàgg loolu te ànd ak wér jébbaloon ko 100 millions keroog bi ñu teg xeer bi euh, ginnaaw loolu nag ñu jël fa benn batiment boo xam ne Touba ca kanam ma ngi ko fay tabax muy benn R plus 3 ñu xayma ko ci 800 millions kon nag mbokk yi dañuy ànd ak sunu caméraman Serigne Ousseynou Mbodj ñu fas yéene woon mbooleem liggéey boo xam ne Touba Ca Kanam naan na ko ci biir dëkk bi seel bi tubaa ba fu waay nekk mën a xam Touba Ca Kanam li muy laaj askan mi fan la koy def nit ñi boo leen laajee li ñu mën danga koy def fu ñu xam loolu lañ fas yéene ànd yéen kon ñu ànd ak suñu caméraman fas yéene dem ànd yéen ci sànce yi رسمها yi xam naa incha allah li njëkk def rek euh, mooy dem ci poste santé bu Daaru Xaddim euh, Daaru Xaddim nag euh, ki nga xam ne mooy jëwriñ nga foofu di Sëriñ Fàllu Mbàkke Jumaada ànd koog ñoom soxna Mbaye ak Jung nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a am positif ci Touba ca kanam Touba ca kanam naa la fa benn poste santé boo xam ne Euh, keroog bi ñu tax xeer wi Serigne Abdou Fatah Mbacké moom Cheikh Ahmadou Fadel moom moo ñëwoon euh, tegal ñu xeer wi. Euh, loolu nag li tax Touba ca kanam boo ngeen gisee liggéeyam gën a fés ci tabax barabu fajukaay ni ko xamee Touba daf ko manqué lool soxla ko lool ndax dëkk bu toll ni Touba li fi nekk matul fanweeru poste santé tañ wax ne li fi li li mu waroon am war naa ëpp téeméer téeméer nangam. loolu moo tax Touba ci kanam bi muy tàmbali liggéeyam mu tàmbali ko ci tabax ay barabu fajukaay incha allah. bala ñoo tàggu yéen dee leen leeral lépp loo xam ne Touba karam Kanam sumb na ko mu nekk en chantier fii ci biir dëkk bi ba kenn ku ci nekk ku bokk Touba Ca Kanam buñ la laayatee Touba karam Kanam fu ay liggéeyam toll danga nga ko mën a leeral kon ba tey ñu ngi ànd ak sëñ Maam Thierno Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite commission réalisation bu Touba di commission boo xam ne commission bu mag la ndax Touba Ca Kanam mbooleem li ñuy réaliser rek moom moo ko jiitee ànd ak sunu mbokkum taalibe sëñ Balla Mbodj Balla Mbodj moom boo ko dee présenté Touba Ca Kanam daanaka fépp tudd boo ne commission sociale Balla Mbodj ma nga fa boo ne massification Balla mbooj ma nga fa boo ne saa sax Balla mbooj ma nga fa mu ngi ci commission yëpp kon mën nañ ne sëñ Balla mbooj Touba ca kanam rek kon mbokk yi ñu fas yee ànd ak yéen euh, dugg ci Daaru Xaddim leeral leen liggéey bi nga xam ne moo nekk foofu di poste Daaru Xaddim man naa la kii yaa ngi si jàmm naka coono yi bàyyi def dara alhamdulilah naka liggéey bi mais ni ngi doxal. ni ngi doxal ndànk ndànk. ana gars yi commencé ko brique koy dégager quoi. waaw. suuf bi ngeen doon wax tamit ñëwagul quoi. ñëwagul. incha allah. d' accord deux tonnes. léegi benn saar suuf bi. benn saar suuf bi mënu ko mool. mënu mool. mën na mool. waaw. ah ngi fi kii la suivant ngi fi moo moolul kay ngeen di lijjanti rek. moo lër ah waaw bi kii bindal na la ñaata tonnes lay doon ak yooyu njëme deux tonnes deux bi de santé bii nga xamante ne bii mooy Daaru Xadim euh, kii ma dendal sama ndeyjoor mooy euh, moor mooy chef de chantier bi ci entreprise bi ñuy wax euh, BMI borom Madina international léegi pour ma expliquer leen poste bi nii la demee boo ñëwee fii côté bii mooy côté ICP côté bële mooy côté sage-femme bi maanaam maternité bi bu ko defee dañuy dugg ci ICP bi ma expliqué leen fii ngeen di gis nii mooy euh, pharmacie bi en même temps fi lañ am gise fii day nekk euh, euh, bureau assuin bu ko defee boo jàllee fii mooy salle de hospitalisation bi ñu avancé tuuti fii patio lay doon pour aération xam nga lu mel ne hôpital ak kii yi muy am foog mu am aération pour mën a génne yenn kii yi daal euh, fii toilette la fii tamit euh, salle de soins la euh, fii nag mooy bureau ICP bi maanaam chef de poste bi fii mooy nekk bureau am day amaale salle de bain moom boo boo gisee installation yi nga gis yëpp day am caméra surveillance amaale installation électronique électronique maanaam comptabilité beeg lépp prévoir nañ ko fi nga xamante ni bi moom du manqué dara bu ko defee mën nañ jàll nii ma expliquer la ci euh, euh, sage-femme bi waaw fii mooy euh, maternité bi maternité bi boo ñëwee fii toilette la fii mooy salle d'accouchement bi fii mooy salle d'accouchement bi fii la ñuy accoucher fii nag mooy salle de préparation bi maanaam fii lay fii lay waaw salle de travail fii lay fii la ñuy travail après jàll ci salle d'accouchement bi ñëw fii euh, fële ngay gis ne mooy euh, bii mooy salle de garde bi bii nii mooy salle de garde bi waaye fii nii mooy euh, salle de hospitalisation bi maanaam ñi nga xamante ne bi am nañ fële doom ba noppi fii lañ leen di indi ci salle bi bu ko defee fi la ñuy nekk waaw moom la ñuy wax de couche. suite de couche waaw mi nga suite de couche baa ngi nii kon mooy salle d' hospitalisation bi li tax ñu def ko mu jege tamit mooy day faral dem ay visiteurs te fii comme que dafa nekk partie boppam moo tax ñu isolé ko nga xamante ne bi visiteurs yi mën nañu dugg fii te duñ jotee ak euh, euh, malade yi nekk fële di am doom dara ok jërëjëf ma jàll fi waaw fii tamit euh, boo ko jësee mooy euh, sa euh, saalu sage-femme bi bureau sage-femme bi mooy fii nga gis nii dafa am bureau ci biir ànd ak salle de bain bii deuxième bureau lay doon pour bu ñu amoon beneen sage-femme kon day mel ni hôpital bi dañ fi réserver sax en bu nekkoon deux sages-femmes ku nekk dina mën a am bureau waaw fii mooy hall bi nga xamante ne bii kii fi la ñuy nekk patients yi fii la ñuy toog pour mën a xaar seen ay malaat wala ñi nga xamante ne bi dañu war a dem ci docteur yi tamit foofu la ñuy toog kon ñu jàll ci kanam ma wan leen logement bi <laughs> lii mooy logement bi moom en général dañ koy def euh, étage bu defee euh, comme ni leen ko waxee woon fële sage-femme ak infirmière lay doon euh, lii mooy nekk seen logement kenn ki mooy dëkk ci suuf kenn ki dëkk ci kaw ci biir composé na deux chambres salon ak cuisine ak toilette visiteur benn chambre bi am salle de bain kon nañ dugg ci biir ñu xool ko waaw comme comme niñ ko waxee woon rek euh, li mooy salon bi salon bi tamit euh, salon bu mag la bien préparé macha allah lii mooy nekk euh, magasin bi benn chambre bi mooy nekk nii ànd ak salle de bain mooy chambre parent bi bi aussi chambre lay doon muy deux chambres nga ñëw fii am cuisine bi boo ñëwee fii am toilette visiteur bi li moo nekk lii lañ composé fii ci euh, euh, étage bi loolu tamit moo moo moo waat ci suuf deux chambres salon ak euh, toilette visiteur ak magasin voilà ak cuisine waaw وليجر بحق والتوفيق لحرمة موفق فاروق وليا سادة الدارين بأخ عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا مريم هب لي في الدارين ستا يعتلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخبر jërëjëf kon mbokk yi ñu ngi taxaw ak Serigne Mor Sock mi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi fii sant bu Daaru Xadim mu doon entreprise boo xam ne eh, Touba Ca Kanam moom la engagé eh, ngir mu liggéey poste santé entreprise bi it avant ñu koy tànn it comme niñ ko baaxoo defee lépp liggéey boo xam ne Touba Ca Kanam sumb na ko Euh, dañuy def appel d'offre bu ko defee euh, ñu ci bari indi seen offre ñu xool biñ jàpp ne moom moom moom mooy bi nga xam ne moo gën a méngul lañ bëgg jox ko liggéey bi ci lañ leen tànnee jox leen liggéey bi euh, ñu bëggoon a laaj diir bi nga xam ne liggéey bii di poste santé Daaru Xaddim tàmbali na ak léegi tàmbali na boobaak léegi ñaata weer la ak it ndax Touba ca karam li nga xam ne warloo na ko ak yéen bi si jiitu mooy lu jëm ci wàllu matériel ndax Touba ca kanam lépp lu muy liggéey moom mooy fournir matériel am euh, entreprise bi li muy defante moom moom di ko fay muy liggéey ndax matériel boobu yéen a ci jot à temps ndax qualité bi ngeen waxoon yéen a ngi ci jot ak liggéey bi fi ñu toll nii à peu près muy ngeen wax ne fii ak ñaata yoo dégg ñu mën a jébal caabi. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Touba ci kanam ñu ngi leen di siyaara di leen jox seen wàcc waaye di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm te boole ñu ko di wax ne liggéey bi biñ ko commencé ak léegi presque cinq mois lay tollool. te juróomi weer juróomi weer waaw. Hmm. yu manqué tuuti rek. te boobaag léegi nag wax dëgg si yàlla liñ fi gis ci jafe-jafe mën nañ ne lu néew la. dëgg la liggéey du ñàkk jafe-jafe mais yaakaar naa jafe-jafe yi fi ne yëpp waa Touba ci kanam rek la nañ ko. Hmm. matériel bi ñuy indi it aussi tegu na ci norme yu ñu soxla ci sànce. wax dëgg si yàlla feer bu baax lañ fi indi importe lañ fi indi ak suufu bu baax suufu Jurbel lañ fi indi boobu ba léegi mosuñu fee indi benn suufu Tuubaa kon nag euh, loolu moom ñu ngi leen ci jaajëfu bu baax ndax ak béton béton arme lañ fi indi basalte bu ñuul bi lañ fi indi wax dëgg si yàlla boobaak léegi nag amuñu dara luñ ci naqari ci wàllu matériel bi mhm. ñu ngi ñu nit suñu kéemtalaayu kàttan ñu ngi ko ciy def mhm. ndax wax dëgg si yàlla liggéeyuñu lii rek boobaak léegi ñun li ñuy liggéey bari na kon nag bu ñu wóoloo ba jox ñu ko te mbirum Sëriñ Tuubaa dañ ciy sawar suñu kilifa it loolu la bëgg nday dañuy contrôler ba yabal ñeneen ñu ñëw di ñu lu ngeen yëgul dañuy ñëw foofu ñëw waxtaan ak yéen duñ ko yëg kon nag euh, ci loolu lañuy dox ñun yaakaar naa ne yéen tamit bu ngeen fi gisee lu leen yi tamit war ngeen ko mën a annoncé. Mhm. buñ ko mënee saafara ñu saafara ko. Eh, nga jàpp ne fii ak ñaata weer liggéey bi dana normalement fii ak bu dara manqué wul daal fii ak mois bu soobee yàlla dinañ leen jox seen i caabi bu soobee yàlla waaw. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo. Mhm. Daaru Xaddim. Mhm. Eh, poste santé bi ñu ko tàmbalee léegi mu ngi toll ci juróom weer. ñu ngi leen di jaajëfal ndax fii moom képp ko fi ñëw. Mhm. dana xam ne euh, li liñ yaakaaroon ci yéen. Mhm. Euh, wane ngeen ko ndax ci diiru juróom weer. Mhm. ngeen tabax fi lu mel ni ba jàpp ne fii ñaari weer nga xam ne lépp lépp juróom ñaari weer lay doon. ngeen mën fee tabax poste santé bi jëbal ko Touba ci kanam. loolu moom feex la euh, ni ngeen ko waxee. yàlla na ko suñu borom dogalee noonu borom Tuubaa kon yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal sëñ Maam Cerno Ndiaye mi jiite réalisation sëñ Balla Mbooj kanam ñu fas yéene ànd ak dem ci yeneen poste sant yi nga xam ne Touba ci kanam mu ngi koy def ci biir dëkk bu sell bi di Touba.